dina ko dina ko yàqal lu bëri moo tax mu éliminer ko mais même chose la ak Bougane ak Macky Sall parce que moom jàpp jàpp nañ peut-être que Bougane lim koy def neex ko te meilleure façon mooy yàq xaalisam nii nga nekkee dam lay seetaan ba bisu élection jot ma def li ma neex fi nga bëgg bokk doo fa bokk parce que yeneen gox yi yaakaar naa ñu ngi koy nekk di ko di ko di ko rétablir dans ses droits mais euh, au niveau de Dakar ba tey dafa dafa dafa taxaw te loolu aussi euh, président bu jàppee ne stratégie bu baax la mi ngi juum mhm. parce que yaakaar naa ni dafa nekk di organiser opposition bi ñu nar a nekk union de fait parce que bu nekkee par exemple ñii nga xamante ni dañu naroon votel Bougane boo xoolee yaakaaruma ñu dem votel ji Abdou euh, euh, le gars Mbaye mm-hmm. gëw ma ñu votel ñi nga xamante mooy candidat wu benn bokk yaakaar aussi forcément ñi waa ku jóg nañu votel te boo xoolee profil bi Barthélémy Dias lay doon mm-hmm. donc ñoom dañu nar gën a fexe sax ba lu tasoon ci opposition bi fracture yi si jotoon am Macky Sall koy nekk di ko tabaxaat parce que gëm naa ne bu ñu demee ba invalider li nga xamante ne mooy candidature am de manière définitive boo moytuwul Bougane dina wëlbatiku jàppale Barthélémy Dias te boobaa Macky si la gën am problème parce que bu leen diviser woon tey jii Bougane dina am peut-être benn 5 pour cent bu mu yóbbu ci Barthélémy wala Barthélémy dina am benn 5 pour cent bu mu yóbbu ci mais boo leen regroupé nii dafay dafay dafay dafay dafay nekk addition te addition boobu mën na ko coûter cher. tout à fait ñu wax léegi si Barthélemy Diaz l' affaire euh, Ndiaga Diouf ak euh, semaine bi passée gis nga yëngu-yëngu yu ci euh, amoon finalement kii di Barthélemy Diaz procès am ajjandi nañ ko premier décembre bi nga xam ne ñu ngi ko fas yéene dëgmal Bougane Barthélemy ak Sonko ñoom na arrêté woon ne leen puis libéré leen si après midi bi mu am ay échauffourées. <coughs> excusez-moi si euh, VDN bi entre les manifestants et certains gendarmes mais euh, Pape Matar du ma question euh, Barthélémy Diaz logique pour logique daloon rek di uyu li nga xam ne pro appel bi nga xam ne mun na nañu waxoon moo ko interjecté woon ñu joxoon ko rendez-vous pour mu uyu si kanami justice est-ce que tout ce bruit amoon na waroon na ci am Pape Matar waa ouais, mais bruit bi ci kan la jógee génn këram aussi il faut rappeler que notifié woon nañ ko déjà que euh, l'affaire a été déjà euh, annulée. waaw ouais, mais xam nga no politique bokkul ak yeneen activités yi homme politique occasion da koy saisir. ah da nga bëgg wax ne que euh, quand on fait de la politique on doit manipuler par ma non non du manipulation du manipulation tey jii président Macky Sall ba mu jugee ci émeute mars yi dafa organiser soi-disant ay tournées économiques. Mm. parce que il avait besoin quand même de se d'avoir euh, benn foule bu koy wër di ko yuuxu di ko yuuxu di ko yuuxu moom aussi mu euh, yëkkatiwaat image am wane que nii nekkul président bu illégitime bu ñu jéem a présenté mais beneen wàll bi aussi homme politique bu gisee ni lii opportunité bu koy may mu def benn benn foule mais da koy def génn na parce que moo tax man la bureau bi fan la jógee génn na dañ ko convoqué. quitte même à sacrifier euh, la ah, vie de sac... certains <laughs> Sénégalais. non non non no sacri... no non mettre en danger aussi des jeunes. waaw sacri... sacrifier waaw manipulation bi aussi daf xaw ko doy waar Pamatar. waaw waa accord mais sacri sacrifier bi yaakaar naa ni ñoom waxuñu leen kaay leen ñu dem tiire ji ñu tiirante yore ay armes di dem. yaakaar il faut ñu assumer en sa c'est-à-dire rançon démocratie la bu ñuy nuyee par exemple dañu nekk ci état de droit que sénégalais bi am na sañ-sañ. exprimer sa liberté tey ñii politique Macky Sall duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko bañal wala duñ ko nangul loo xamante ne dañ koy bañal keneen. Mhm. Barthélemy aussi duñ ko bañal lu ñu nangul keneen. convoqué nañ fi Karim Wade mu ànd ak ay nitam dem ci buntu caserne Samba Diéry Diallo fa lañ doon taxaw chaque jour buñ ko convoqué taxaw fa. ba ba muy dem procès aussi ni nga xamante ne ay nitam dañu ànd ak moom dem. mais euh, même chose ak Khalifa Sall. mais Pape Matar est-ce que moment yi ñu euh, après les événements de mars dernier nga xam ne on a perdu des jeunes yoo xam ne amuñ sax 30 ans. est-ce que euh, homme politique yi fu mu toll nii war nañu jouer par rapport à ça. waaw mais xam nga ba ñu jógee ci loolu moom laa lay wax léegi xam nga. bu ñu nekkoon ci les nerfs sont assez ñu jógee ci euh, quatorze personnes yu ñu ni ñàkk nañ seen bakkan. di leen mhm. jaal encore une fois di leen ñaanal yàlla fu ñu tëdd suuf seen seen kaw. Mhm. lan la ci président bi nga xamante ne moom mooy suñu kilifa. Mhm. lan la ci teg organiser ay tournées nationales ci tournée yooyu. di fàttali ni ci ay images. dañu doon gis ñoo xamante ni kenn mënu leen identifier ay punkalu maam yàlla yore seen yet ñii yore seen jaasi képp ku taxaw mu yore morso bu xonk ñu duma la mm-hmm. te pourtant situation wala contexte bi période boobu la gënoon la gënoon doy waar mm-hmm. mais situation Barthélémy Diaz pour en revenir mm-hmm. yaakaar naa ni nit ku ñu convoqué la mu ne man damay dem wuy ji convocation donc benn il a été légaliste mënoon na ni damay défier la justice parce que peut-être wax ay raison am gis nañ ko fii am na ñu fi jot défier justice du benn du ñaar ku ci mel ni Bougazelli rek convoqué nañ ko gendarmerie jour heure kenn gisu ko mu bàyyi ba mu neex ko doogay dem wuyu ji gendarmerie te pourtant defuñu si bruit Barthélémy Diaz ñu convoqué ko ni ko da ngay dem mu ni damay dem da ngeen ma convoqué mais bu ñu fàtte ni maire nañu convoqué maire bi dafa ànd ak ay population waxul kenn par force da ngeen ànd ak man kaay leen ñu dem ma ànd ak sama njaboot ma jiitu ngeen topp ci. loolu kay lancé un appel papa. waaw mais mais mais loolu mënuñu ko bañal homme politique la parce que tey nañu waxante dëgg ñaar yan na yan na bum ñu dal ku fi amoon problème da ngay woo sa famille ñu ñëw dimbali la taxawu la parce que ñun ay sénégalais lam daanañ mais homme politique bi famille dafay yokku. famille politique lay doon. dina woo militant on est dans une république on est dans une société. Mhm. est nga xam ne euh, fu mu toll nii man je me dis que dañoo xewal benn mbir bu bees kuñ ci woo rek nga ne les sénégalais génnal euh, ñu dem mortal combat. est-ce que ñu continuer noonu par par non mortal combat non. voilà ñaar woowuñu euh, mortal combat xam wala ndax dañu ni dañuy dem wuyu ji mais kaay leen ngeen gunge ñu. <laughs> mais dañ leen di gunge. dañ leen non xam nga moo tax man la gis nga pour être juste avec les autres. lu ni ñu jot a def république bi accepté leen ko duma ko leen ko bañal ñoom bu ñu gisee que nii dañu soxla nit ñu leen gunge. tey jii Macky Sall bu ñu ko convoqué woon. Hmm. mais day ànd ak njabootam day ànd ak waa APR peut-être ak waa benn bokk yaakaar dem wuy ji convocation. mais est-ce normal. mais politique la mënuñu leen ko tere en fait. ñu leen ko tere parce que politique la je suis pas d'accord avec toi. waaw d'accord d'accord <laughs> mais politique leen ko tere. xam nga tey jii kañ la doon problème kañ la kañ laa si doon gis inconvénient par exemple bu ñuy dem ñu jël seen ay yet wala di taal ay pneu. wala dinaan dañuy baare ay tali dañuy def ay manifestation mais mais tel n'a pas été le cas. mais pas Matar c'est bien préciser que ni ñoom ci seen oto dañu nekkoon def convoi Barthélemy jiitu sécurité bi jiitu Barthélemy topp si njaboot bi topp ci. ñeneen ñi nga xamante ne ay sympathisants nañu topp ci ànd ak moom. mais Pape Makhtar bu ñu defee benn analyse rek euh, froide par rapport à ce qui s'est passé euh, l'autre euh, fois kii di Barthélémy Diaz xamoon na ne carrément que lii nga xam ne moom la war a uji uy ji annulé nañ ko mais gis nga nu mu defee forcing dem sax ba am ay échange de cadre yu doy waax yoo xam ne mu ngi ko am ak gendarme yi nga xam ne ñu ngi nekkoon foofu Ousmane Sonko doomu ndayam topp si si si ànd ak moom si wet gi ci imagines ma dama imaginer benn scénario Ousmane Sonko nga bëgg ko nga bañ ko dafa am lu muy représenté si Sénégal rawatina euh, si si si jeunesse bi Mhm. imaginez ñoom bu ñu joué woon avec le feu ba kii di Ousmane Sonko dara jot ko fa te yaa a y' di des rumeurs qui kii di Ousmane Sonko dañ koo tiré woon li nga xam ne mooy bal blanc est-ce que que jour boobu noonu man ak yow dinañ toog tey jii nii di di am sax émission. waaw mais léegi le fait que ñuy jouer avec la vie des Sénégalais. pour léegi léegi gis nga Ndiaye. Mhm. comme da nga bëgg ñu waxtaan rek. voilà nañ nañ nañ nañ nañu situer les responsabilités c'est-à-dire tey bu ñu ñëwee par exemple. amoon na ay risque affrontement mais ñan ñooy les responsables est-ce que ki nga xamante ni encore une fois dañ ko convoqué mu dugg ci otoom di dem defi convoi ni damay dem tribunal taalul puna mais on avait déjà annulé non non loolu mënoon na mun moom mooy apprécier en fait non mais mooy apprécier parce que xas nañ ko convoqué génn na këram xas nañ ko convoqué moom jàpp na ni par respect pour ñi nga xamante ne jiitu nañ ko tribunal day dem saafonte ak ñoom respect ou bien par propagande yi non non non bu leen neexee parce que politique la xam nga xam nga loolu mënoo leen ko bañal moo tax man la gis nga gis nga homme politique aussi kenn du ko bañal miy def miy def récupération politique parce que loolay politique ñoom loolu la ñuy def opportunité dañ koy saisir ñoom loolu lañ ko jàppee mhm. te aussi c'est de bonne cause c'est de bonne guerre man du leen ko du ma leen ko si mer mais leen laa ci mën a wax mhm. ñaar est-ce que tey jii war nañu mën a def léegi délit bu bees dafa am Sénégal nit ñi bëgg la dañ ko bëgg def délit léegi dañuy naan Ousmane Sonko waroo jaar diw wala bërëb bi wala Barthélemy Diaz waroo jaar bërëb bi parce que boo jaaree ci bërëb boobu nit ñi dañ la bëgg de telle sorte que dañuy génn ànd ak yow te day indi trouble à l'ordre public. Mhm. léegi loolu lañ bëgg def délit doo jaar buntu université parce que boo jaaree université étudiants yi dañuy génn ñaata ministre ñoo jaar buntu université est-ce que étudiants yi génn nañ fa. mais ministre yooyu est-ce que ñoom euh, am neen dayo bi nga xam ne kii Ousmane Sonko. waaw léegi nag euh, waaw merci merci. léegi est-ce que tey dañ lay parce que da am benn légitimité da nga am benn nit ndax fu ñu la teg que léegi dañoo war a sàkk euh, xaw ma dañ la war a wutal ay yoon dee naan sàq ay yoon naan fii ngay jaar ak fee dama jaar parce que y a d'autres citoyens yi aussi par Matar yoo xam ne ay sénégalais leen comme kii nga xam ne mooy Barthélémy Dias Ousmane Sonko ak kii nga xam ne mooy président Macky Sall di vaquer à leur occupation. déet ñooñu ñu gën a doon sénégalais Ousmane Sonko. ba tey jii Pape Makhtar bu ko neexee jaar buntu université ñun Ousmane Sonko doo jaar buntu université. c'est aussi simple que ça finalement est-ce que ñun tombé wuñ ci piège yi euh, manipulation politique euh, politico euh, politicienne yi nga xam ne des deux bords. non du des deux parce que bu ñu waxante dëgg njàpp nit ki mënuñu ko reprocher li nga xamante ni lu teguwul fenn la en fait cest à man nangu naa. boo amee ay fee yoo xamante ni dañ koy teg sa kaw ñu teg ko sa kaw. mais mënuñu ni yow tey jii boo demee buntu université boo fa jaaree. nit ñi dañuy génn te bu ñu génnee dañuy créer trouble à l'ordre public. léegi kon ñoom dañ lay reprocher sa notoriété léegi délit bu bees la délit de notoriété. parce que da nga am notoriété publique ba boo jaaree bunt université nit ñi dañuy génn ñëw fekk si la tàccoog yow yuuxu euh, jubile trouble à l'ordre public doo fa jaar est-ce que léegi yoon la ñii naan sénégalais bii doo jaar ci yoon bi parce que boo jaaree ci yoon bi nii nit ñi dañ la bëgg a te sox dañuy génn man loolu la rek laay posé comme question bu nekkee ni léegi loolu yoon la mais d'accord mais bu nekkee du yoon ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore force légitime et la communication Pape Makhtar waxtu ba waxtu baa ñuy xaj euh, manipulatrice pour ne pas dire mensongère nga xam ne opposant yi def nañ ko si l' affaire Barthélemy Diaz ak ki nga xam ne mooy euh, njaga Diouf di xam ne ne que Barthélemy Diaz a été convoqué parce que dañ koo bë dañ koo nara xañ doon candidat euh, yeewu askan wi pour mairie bu bu Ndakaaru chose boo xam ne xëy yow xam nga man xam naa ni amul benn yoon mu loo xam ne war na ko mën a empêcher pour mu doon maire de de Dakar cette communication noo koy jugé Pa Matar non mais communication bi bu nekkee mensonger aussi si deux boor yëpp la parce que boo xoolee ñoom aussi ñu ngi koy présenter comme un criminel li ma leen di faral di laaj rek mooy nan comment se fait-il que criminel boobu ñu tuddee criminel tey ñoom démb ñoom ñoo ko jël investir ko duggoo ko seen liste Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. te ñoom ci kaso bi dañ ko fekkoon. Mhm. donc déjà kii nan lay nekkee bërki démb un saint tey mu bëgg nekk un criminel ci benn fee boo xamante ni ñu ngi ko koy toppee depuis 2011. leneen loo xamante ne aussi nit ñi parce que day tey xel 10 ans ngay topp di daw ci benn procès nañ waxante dëgg. Mhm. bu ñu la nuyee timing bi dafa nekk benn timing bu innocent dañuy xëy suba nii rek jël ko dañuy wax lu leen neex parce que aussi élection ñu ngi ko jàpp depuis lan mars wala avril. période yooyu nañ jàpp élection yi donc bu ñu jàppee élection yi période yooyu dinañ xam première audience yi ban an ban mois la bu ñu ko reporté ban période lay tombeel te yaakaar naa ne état du demee ci ci ci ci ci pilotage à vie dañuy def ay projection yoo xamante ni dafay dem ci temps bi te yow mun nga yaakaar ni que amul benn lien mais boo xoolee bu baax dafay am lien bu baax a baax ñu jeexalee ak violence verbale Sonko génn na tëkku Barthélemy Dias la même chose ak kii nga xam ne mooy Khalifa Ababacar Sall mais dafa mel ni comme kii di euh, le président de la République euh, finalement tontu na leen donc cette euh, violence berge verbale fan la mun a jur yóbbee askan bi ak la réponse du président de la République boloon ko analyser wala sa fu toll nii di si wax noo ko gisee. waaw mais xam nga violence bi comme verbale nga wax mais man violence physique laa gis. Mhm. parce que violence physique weesuwul nervi nga xamante ne bokkuñu police bokkuñu gendarmerie te di dooraate ay yet te pourtant dégguñu si police dégguñu gendarmerie. Mhm. police maa ngi gis ñu def benn communiqué di rappeler euh, tenue yi nga xamante nit ñi lañ koy sol te waruñu ko sol force spéciale yee ko war a sol. Mhm. mais d'accord mais police boobu waroon na mën a def communiqué ci nervi yi nga xamante ne dañ koy wax te di ko gis. te pourtant boobu ba tey kenn déggu leen ñu wax ci loolu donc yaakaar naa ne gis nga dafa am loo xamante ne buñ ko bëggee teg ci dëkk bi par par parloo dafay ñëw te par parloo boobu bu amee moom laay wax ni ci moom laa doon ñëw par parloo bu ñëwee mhm. nit ki day dem ba benn instant du daseeti leen dul intimidation mhm. discours bi limité ko ci simple intimidation entre deux hommes politiques du leneen parce que ñoom ñëpp bu ñu amul benn animosité bu ñu bu ñu kii dañuy wax noonu dañuy politique kii di jéem intimider moromam kii di jéem comme combat de Mhm. ñaari mbëri bu ñuy tiimantee la ñuy wax mhm. même chose la en fait dañuy am benn genre violence boo xamante violence verbale la mais en réalité du doon leneen mais kenn nag moom moo am violence di ko exprimer te dépassé na violence verbale mi président Macky te moom dara mun a justifier façon bi muy waxee ay kenn du ma xoxatal te nga et puis déjà conception bi mu am ci pouvoir moo posé problème. Mhm. tey jii yore lépp. Euh, paroles yi nga xam ne